nga daan le F24 bu ñu nee rassemblement ngeen interdire ko f a tas parce waa opposition F24 ci a ba tey ñoom troisième ñuy wax. ils ont le droit de s'associer et de vouloir exister. mais ban associé yow waa bi waa bu ñu nee dañuy dañuy def conférence de presse. gendarmerie ñëw barricadé buntu seen siège alors que ñoom ils ne sont pas en porte-à-faux avec la loi. situation bi ñuy dund nii c'est une situation exceptionnelle il faut le dire. parce que Maïmouna li judd ci réew mi. feeñ ci réew moo aussi c'est une. lan moo amoon ci réew mi actuellement non mais attends mais dafa dal léegi mais li fi amoon bu état bi jël jëloon ay responsabilités am kon tey jii du ñu toog fi di wax. d'accord voilà mais mais c'est pourquoi nag aujourd'hui on continue. à être vigilant mais ça ne touche que man nag nekk euh, ma nit koo xam ne damay euh, gobee lépp li nga xamante ni peut-être nguur gi daf koy def wo di restreindre un peu les libertés des partis politiques. mais c'est vous ne restreignez pas un peu. aujourd'hui a une restriction abusive des libertés. surtout des leaders de partis politiques. je suis loolu loolu gëwuma loolu. parce que comme ni ma la ko waxee euh, société civile da ngay ne société civile wala nga nekk leneen aujourd'hui ñu bëri. nekk di wax société civile c'est des politiques. mais c'est leur responsabilité. waaw mais da nga koy assumer. ñoom ñooñu noonu. waaw da nga koy assumer dañ leen jàppale woon en 2012 jàppale leen tànk et ça ne va pas choquer. non non non da nga koy assumer. Alioune Tine mi ngeen di xas tey il était à vos côtés pour le combat en 2012. xam nga yow ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi. yow man waxuma nit Alioune Tine ak ñoom Seydou Gassama ñi ngeen di. xamal tey depuis qu'on est là may mun a. yow jaxase rek nga fi nekkee. mais jaxase parce que man maa ngi nekk di wax waxu société civile nga ne Alioune Tine man ku xas Alioune Tine ma ne yow xoolal fi xaaramoo la pour te dire que xam nga organiser ngeen fi une campagne de deux semaines ku génn xas yow message dama lay woon benn affaire parce que gis nga àdduna li gën a bon ci àdduna mooy jaxase ak xoolal lii message bi kañ na ma ko Alioune Tine envoyé xoolal non xoolal di nga lire kay parce que yaa ngi lire ay message pour te dire damay dem ci tes activités non kañ la ma ko envoyé non pour te dire que je sais pas je ah, koo gis je comprends même pas mënoo koo gis parce que da nga da nga parce que yaa ngi bëgg jaxase man gis nga loolu mu gis nga sawaay réew mi damaa bëgg nga xam ne les gens se parlent mooy moom les gens dañuy discuter mais am na loo xamante ni su dee factuel da ngay wax lu factuel gis nga man lépp loo xam ne dama koy wax ci télé wala ma koy wax ci rajo day doon loo xam ne lu ñu mën a vérifier la du ma waxantu. mais fan ngeen teg cette restriction. des libertés des autres partis damaa gisul pourquoi yéen rek am. droit am activité parti bu ñu restreindre ay activité li ngay wax nii c'est parce que am na loo xamante ni moo tax ñu def loolu surtout. mais mais koo xam ne ku jaar ci yoon. mais ku jaar ci yoon. yoon du dal sa kaw lay wax sànq.